Bonjour mbokk yi ñuy seetaan télévision Dakar Actu eh, ni ñu koy baaxoo def ci campagne bi mu ak léegi am mbégte te itam di fi dalal beneen gan boo xam ne eh, ku ñu ràññee la eh, ci réew mi duñ ko comme ci langue politique bi dinañu wax moom mooy kan. dalal mouvement indépendant bi ñu tuddee Sénégal. Euh, ginnaaw bu ñu nuyoo Alioune Badara bi ñu bokkal plateau bi <coughs> dañu koy bàyyi rek mu nuyoo waaye itam wax ñu kan mooy Sitou Nkara bi ñu tàkkaal jaajëfal la El euh, gërëm la sant la am plaisir également di dalal euh, ki nga xam te mooy Mamadou Sitou Nkara ci plateau bi am plaisir di ko bokk ak yow wax ko Mamadou Sy Tounkara lay wuyoo ci turam deug Sénégal yi nag ñu ko gis fi nga xamanteni mom modi ci écran 2STV di première chaîne de télévision privée bu Sénégal rawatina ci émission bi nga xamanteni mom modi, grand rendez-vous mu nekkon fa li nga xamanteni mom modi chroniqueur Mamadou Sy Tounkara daawul may lenn ay invité ci li nga xamante ni moom moo di critique ak analyse yi nga xamante ni da koy def ci seen i ay production moo xam muy écrivain muy politique muy fecckat wala wéykat wala sax ay rappeur ku nekk dalal na te gis nañ li nga xamante ni mooy jàppal bàyyi bi nga xamante ni si ay débat d'idées da doon am ci digganteem ak ñi nga xamante ni ñoom lañ doon dalal ci li nga xam ne mooy plateau bi animateur émission bi nga xamante ni moo di Sénégal ca kanam dartoot na njalbeen doon na ci li nga xamante ni moom moo di directeur radio origine fm peut être que ñu bëri umple nañ ko foofu sax la njëkk a émission bi nga di sénégal ca kanam ci demande nak général ñi nga xamante ni ñoom ñoo di auditeurs yi ñu ko doon euh, sétane ci le directeur bi jëlé décision ni ko fo mu yobbu ko ci télé bi animé ko fofé tamit jalooro yu fi doon def Sénégal yi gis nañ ko ba tax na tey jii ñu ngi laajaat émission bobu mu dikkaat ci télé bi Mamadou Sy Tounkara moom tey jii ñu japp li nga xamanteni mom modi télé bobu mu nekk deluna na doon chroniqueur fi nga xamanteni mom modi ci émission bobu ñuy wax grand rendez-vous ci weeru koor bi tamit gis nañ ko ci émission bi nga xamanteni mom lañ doon wax tuuti laa di émission bo xamanteni ni am solo la professeur de méthodologie ak de mondialisation la ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar donon directeur origine FM maa koy wax légui légui ni bu wesso nak wolof ak français ak arabe bi nga xamanteni dañ koy làkk Tunkara dina làkk tamit li nga xamanteni mom moy euh, fi ñuy waxé li di anglais li ko waral mom modi di def na ab diir fi nga xamanteni mom lañu woyé pays de l'oncle Sam mom modi États-Unis sëñ moom Sy Tounkara dégg nga li Alioune Badara Diop wax euh, ndax am na loo ci bëgg yokk. déedéet xanaa tàmbalee nuyoo leen yow euh, Alaaji Gisee ñu bokkandoo Sud FM wala tàmbalee def euh, média bokk Sud FM yëpp di leen ziar Alioune Badara Diop mi ñu bokkandoo liggéeyandoo 2STV waa Dakar Actu ñoom ñëpp samay samay wóllëre lañ ak mboolem yi ñuy seetaan ñëpp.

Euh, jërëjëf ci ginnaaw bi nga xamee ne euh, wax na nañu ki nga xam ne moom moo di moom euh, Mamadou Sy Tounkara Alioune Badara mel ne daf ñu xaw a baab nag ci affaire bi <laughs> voilà du du ñu du ñu nangu nga baab campagne bi tey tey lu waral mouvement bi nga taxawal Sénégal defar Sénégal. mouvement bi li ko waral El Hadj mooy léegi suñu réew mi dañoo daganal képp koo xam ne. yow am nga nationalité sénégalaise te amoo xaar ma yàlla ak euh, yoon bu élection jotee bu la neexee nga bokk si loolu référendum bi nga xam ne moom lañ def daaw moom moo ko daganal yow mii El Hadj Guissé bu la neexee bu élection ñëwee nga bokk si beneen bi tax ñu taxawal mouvement bi mooy ñun ñu si bokk mënatuñu toog noonu rek di jàmbat naan réew mi doxal politiciens yi doxaluñ ko ñun dañ si bëgg bay suñu waar. Euh, ba bu doxul ak bu doxee yëpp ñun ñu ne ah am nañ si lu ñu euh, waar wu ñu bay ñetteel bi nag mooy ñun li ñuy dund tey suñu réew mi amul fenn foo xam ni kontaan nañ si loolu dañuy bañ suñuy doom ak suñuy sët dund ko bëgg nañ leen liggéeyal Sénégal boo xam ne moom moo gën bi ñu nekk. bi ñu nekk dafa am lu ci naxadi loo xam ne gis nga nekk waruloon am wala amaana bu ci nguur gi taxawoon du mel ni mel. waa li nga wax yëpp am na mais li wértu wóor mooy réew mi amul tey benn pàcc si réew mi boo xam ni ñi ci ne bëgg nañ ci du napp yi du sàmmkat yi du sàmm yi du baykat bi du jàng ak jàngale du wér-gu-yaram du tas xabaar bi ngeen di liggéey du dem ak a ñëw du dëkkuwaay ñun réew mi kontaan ngi si li ko waral mooy dafa am ñoo xam ne juróom fukki ak juróom-ñaar ñoom lañ jox suñu réew ñu koy jiite waaye ñoom dañ koo ràcc jëmale seen boor ñoom nekk nañ ay millionnaires ay milliardaires mais réew mi kenn liggéeyalu ko ba tey euh, ñun mënatuñu nangu ñu ñuy jox ay calmants ay tranquillisants ay hypnotiques ay somnifères nelawal ñu gëlëmal ñu di ñu wax lu dul dëgg ba pare di ràcc affaire bi jëmale seen boor loolu lañ mënatul nangu léegi ñun naan nangatuñu naan tranquillisant wala somnifère wala yooyu.

ñëpp ngi jooy jot ñu seen carte tey rek maa ngi wax ak kenn mu ne ma nee nañ ko euh, ma nga fële ca Espagne nee nañ leen jour élection yi lañu war a ñëw jël ci seen carte d'identité waa gisonaa ma sama mbokk yi nekk foofu yëpp ñoom xaadim di leen ziar léegi ci suba la ma ko xaadim yónnee message whatsapp ne ma dem nañ pour jëli carte yi ñenn yi jot nañ waaye ñeneen ñi nee nañ leen bésu élection lañu ñu war a jël. commission bu ma tëj nañ leen. carte d'identité yegg si na Espagne. ñoom waa Gisona ñu ne leen na ngeen ñëw jël si seen carte bi ñu demee di jëli ñenn ñi jot nañ waaye ñeneen ñi xaadim ne ma nee nañ leen nañ ñëw bésu élection yi pour jël si seen carte laa gisee su fekkee juróom-ñeenti weer doyul pour état. ak moyens yi ñu ko jox yëpp ñu jox ko suñu ay impôt suñu ay taxe sunu ay doole jox ko lépp juróom-ñeenti weer doyul pour ñu mën a génne benn carte d'identité te carte d'identité Alioune Badara Diop sa këyit bii nga yor imprimé ko si ordinateur ñoo yem de carte d'identité ab imprimé la. ah bon la këyit bi nga yor. Mhm. bi nga yor Suisse njëkk a biométrique ajak jak mhm. boo fa demee ñu lay defal sa carte d'identité balaa nga génn bureau bi sa carte d'identité sa day mët ñu tàppee dugal bés imprimé mu génn ñu la am sa juróom-ñeenti weer ñun mënuñu defar benn carte d'identité nationale. Ah, lu waral léthargie boobu. mais du ñu ay liggéeykat Alioune Badara xam nga fa du rek dem ñëw mbir la da ngay stratégie planifier mën exécuter def suivi amélioration def.

ñooñu xamuñu liggéey. ministre de l'intérieur mais direction de la de du fichier. ci politique ñun hum. responsable bi ñu gis responsable moralu carte d'identité toll hum. ministre de l'intérieur la politicien la. duñu liggéey kat. pourtant délégué service yi. ñoo mais ñun résultat xam nga Diop man di Dakar image mais résultat bu baaxul laa jot. lan moo tax mu am est-ce que technicien bi dafa kii est-ce que caméra bi dafa wadd man sama yoon newu ci. yow dakaar Actu yow laa amal affaire ne que résultat bu baaxul nga ma jox ñun tey carte d'identité yi résultat bu baaxul lañ si am ginnaaw bi ñu defee ñaata milliards Alioune bëri na je je crois euh, wax yëpp. bu ci ne nee nga foo dafa mel ni nit ku feebar wala màgget mu feebar. foo laa mu métti mais bu ñu ko déggee. dafa mel yow sa bopp si jafe-jafe nga nekk sëñ sëñ Tunkara toll nga foo xam ne fi dem nga sax ba am fukki million ak pour bokk ci élection yi fan la jafe yi. est-ce ci lépp la wala da nga jàpp ne que mën nañ ko gën a euh, mën nañ ko gën a saafara. li ma wax. man wax ma man de dama ni réew mi fi mu toll amul benn secteur benn pàcc si réew bu ñu kontaan loolu laa léegi fukki million million ak juróom lu yomb yàlla la ñun waa. defar Sénégal dañoo toog kenn ku nekk ñaata nga am am na ñoo xam ni am nañ doole am na ñoo xam ne néew nañ doole kenn ku nekk génn li nga am ñu dajale loolu dem déposer bi ñu def nii tamit euh, campagne laa mm-hmm. gisee loolu lañ def kenn ku nekk ñaata nga am amaana ñenn ñi loofoon nañ ñu joxe woon lu bëri si caution bi mun a joxe tuuti ñu am ñetti million moom la ñuy demee nii campagne dégg nañ ne ñenn ñi ñoom ñetti milliards lañ am ñun taseeg ñoom ñu ngi def seen i ponkalum caravane yore see ñun

naan da ngay da ngay def campagne dugg ci li nga xamante ni moom mooy département Sénégal yëpp est-ce que paradoxe amul ci loolu tamit. Ah, bu la neexee nga tuddee ko paradoxe mais ñun suñu yéenee. mooy def ko mooy dem fu ne ci réew mi. wax ak Sénégal hein? Hein? waaye mëtalagu leen. non ñun li ma wax kay lu leer dama ne ñun ñetti millions la am. waaw moom la xam nga dañ la daf na la euh, ñetti millions munoo cee def ñeen fukki département. ak alaaji yow mënuloo ko xam nga yow mënuloo ko. ak ah, moom ko ñun mën nañ ko. mais mais kon ñu fàttali ne ba léegi dañuy wax ak professeur de de de de de nu ñu koy waxati. de méthodologie ak logique tamit damay jàngale logique. lépp loo gis méthode la. méthode la rek naa la fi ah. damay damay jàngale logique. li ñuy wax nii. Hmm. alal la parce que da nga lekk oto yi dañ koy sol essence di nga fanaan ci dëkk te loolu yëpp. doo wax nekk nag ñetti millions si Tounkara d'accord ak ñun également mun nañ xam nga yaa ngi wax lekk. waaw bu soobee yàlla nañ lekk lekk seeru essence seeru. dañ ñuy tuur lëndëm Tounkara. Ah, ah kon nag loolu mënatuma si dara. non xam nga ne naa a def. xam nga man damaa wër damaa wër Sénégal mm-hmm. ba jàpp ne tey oto boo ko fi taalee. jëm Kédougou. munoo mm-hmm. cee def lu néew même bu dee oto gasoil la. lu néew deux cent mille francs. te rawatina. am nañ ko rawatina non dama la hivernage bi ñu sa séparé boo ci defee dix. dix distance yu mel noonu. diis lan oto. non dama boo ci defee ñaari oto. nga def ko ci def ci dix distance yu mel noonu xaalis ba jeex na. waaw léegi yow bu doon yow la sa xaalis jeex na. mais ñun du jeex. aywa bisimilah. kon <laughs> am na loolu yàlla ñun yàlla lañ àndal. <laughs> léegi yow na alaa ñun daal lu leer lañ wax. Mhm. ñetti millions lañ am te fas nañ yéene dem fépp. xanaa nag loolu am nañ si droit. waaw léegi benn question bi bi bi ma bi sama esprit mooy candidat nga mais dama la mës a dégg lire la également nga ne Sénégal du mës a am une assemblée digne de ce nom parce que copier coller la ci système bi nga xamante ni moom moo nekk France. lu wér nga wax euh, ñun sunu assemblée bi ñu ngi ko tàmbalee 1961 mooy première législature. Mhm li ñu def de copier dem assemblée France palais Bourbon président vice-président gesteur, secrétaire élu exactement ñu jël modèle boobu teg fii. organigramme complet et qu'en est-il de notre indépendance na ñun. indépendance mu nga wax la rek euh, xam nga assemblée fi loi hmm. loi ni ngay ñu tëgg ko tënk ko loolooy loi léegi ni ngay dundee dafa war a méngoo ak yow yaay kan fan nga jóge lan nga am et surtout lan nga gëm waaw te li ngay dundee bi nga gëm daf si war a feeñ léegi nag ñun bu ñu demee jëli ay assemblée jàmbur jël ay loi wu jàmbur parce que ñun suñu constitution dañ koo copier si tubaab bi jël loi yi assemblée nationale France di doxee ñu def ko suñu assemblée keroog dama dégg dama liir téere bu am solo bu Amadou Tidiane wan bind mom dafa nekkoon. Mhm. vraiment au cœur du système liggéey que président Senghor moom euh, bu ñuy bay tey suukar fii ci réew mi moom moo ko sabab. Mhm. Euh, président Diouf nekkoon conseiller premier ministre Habib Thiam bi yàlla na ko yàlla euh, yërëm mu wax lu garaaw si téeréem mu ne moom Amadou Tidiane Wane moo njëkk nekk conseiller président Abdou Diouf au développement rural. Mhm. ay 1984 en tant que sénégalais. Mon mm-hmm. avant mon conseiller au développement rural du président toujours tubaab lay conseiller juridique mon ak conseiller des finances mon ak conseiller sécurité tubaab lañ mës Le développement rural. <laughs> Non, nga ma de. <laughs> xam je nga loolu. da eh, moom la ñu même lycée ça ay ci Je mm-hmm. comprendre que l'homme waaye bu fekkee nañ toog ba tey euh, yoonu yàlla gi ñëw génnee suñu bopp ci loolu nga xam ne mooy suñu dépendance ak tubaab bi jàpp naa ne boobaa seen mouvement bi am na lu ci li mu war a def ci taxawaay boobu ngeen nekk ana tànk ngeen ci fas yéene dox kon pour taxawal assemblée beneen. Euh, ñun li ñu wax mooy li jiitu si réew mi fu mu toll nii. Mhm. mooy jëlee fi politiciens yi politiciens yi du ñu ay liggéeykat. li nga wax ni El man dama si ànd 100 pour cent mais loolu liggéey la. Mhm. boo xam dañ koy toog xalaat ko tëral plan yi exécuter ko suivre ko améliorer ko loolu liggéey la liggéey boobu nag ay liggéeykat ñoo ko mën a def ñoo xam ni ñëwuñu pour seen bopp du seen poste du léegi léegi moo leen moo leen soxal. Mhm. dañu bëgg liggéey pour seen ay doom pour seen ay sët liggéey pour Sénégal ñun duñu ñu Paris duñu ñu Rome duñu ñu New York mais loolu El

lu judoogul mun nga bëgg ko faat mu tuddee ko nem si il est mort de sa belle mort wala. mort <laughs> non judd mort nee la ko nga def. <laughs> ah non plan Sénégal émergent kay judd na ba am na ministre buy topp toog yooyu. Mhm. léegi euh, lu tax ma koy woowee dem si yàlla mooy réew mi euh, Alioune Badara yow loolu yaa ngi koy fàttaliku bu baax bu yàggul rek déggoon nga fi ay plan REVA. absolument avec le président Wade. Gowana. Mhm. ana ñu tey. nax bii noonu lay mujjee. ñun xam nga lan la vision 2035 sauf bi non loolu dañ ko bind xam nga ñun mhm. liñ ñuy jox dañ ñuy tuur lëndëm di ñu jox ay calmant ay tranquillisant ak ay somnifères. mais mais somnifère bi kay xanaa du fracas nag ñu la que autosuffisance en riz en 2017. am na. ah déet. on est ah, la yaa ko fi wax. non non dama ne yaa ngi lekk ceebu waalo wala lekkoo ceebu

Nous nañ xam nañ loolu nekk loolu li ma doon wax rek tour lëndëm calmant tranquillisant somnifère jox plan kii nangam plan Sénégal émergent par exemple ñoom dañu bind sax si euh, contingence li plan manque d'appropriation mooy ñu dem ba sénégalais yi plan

bëgg ko commencé ci assemblée nationale xam naa ne bon ci kanam du ngeen di ngeen waajal 2019 mais dama ne ban profil ngeen jot député yi nga xam ne ngeen tabb ci seen liste parce que ñooñu aussi sen melokaan moom mooy tax assemblée bi soppeeku. mooy casting bi. waaw ñun ñun ñun suñu liste suñu liste ñu ne ngi si ah man mi jàngalekat laa am na ay ñoom Yacine Thiam soudeuse la moom port la nekk di souder foofu ay gaal.

Son euh, euh, directeur de campagne, Bassirou Kébé, 27 ans là. C'est ce qu'il n'y a Parce que nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, dañu bëgg ji lo xamni ëllëg bu ñëwé xalé yoyu tay ñom Aminata Diagne ñoñu 25 ans Mor Lay 26 ans Bassirou Kébé 27 ans ñoñu filé 2022 ñoñu lañuy paré bu ñëwé daw ci kaw ñi changer réew mi complètement ñun nak dinañ tambali lu tax président de la république liste bi dëppoowul ak suñu constitution. parce que constitution dafa tere suñu préambule di si njalbeenu constitution la ñu wax Sénégal dafa war a doxee si séparation ak équilibre des pouvoirs C'est un préambule bi. Mhm. kon président constitution daf ko tere muy jéem a contrôler assemblée waru ko contrôler. comme moom mooy nag tànn dem ci liste.

constitution mom mo aaye ben pouvoir ci ñett yi fi am di contrôler benen bi. c'est interdit il faut que séparation. séparation et équilibre. Mm-hmm. c'est écrit noir sur blanc sur une constitution. d'accord xam nga illégalité bu ci ni nekké foog yoon war la mëna top top, bu la yoon top ñu fexé ba yoon top la. tay ngeen nekk indépendant est-ce que xelat ngeen top vous ba saisir conseil constitutionnel pour ne ko attention à war na ci arbitrer parce que nous, bu ñu ko campagne bi nii euh, xam naa ne am na loo hmm. photo président ci campagne ah loolu de nous, yoon na ko tere. Le super. ah normalement yow alaaji sunu réew mi su fekkoon réew bu jaar yoon la yow balaa nga koy wax man balam ma koy wax yoon ne président li war ko def parce que nous am nañ capacité autosaisine mën nañ jóg ne ah lii de jaarul yoon méngool ak constitution yow mi koy def dakkal ko. buñ ko fait yéen ngeen ne Sénat yéen woon ngeen cee wax. parce que Sénat bi le conseil constitutionnel. waaw ah, le conseil constitutionnel rek war je veux dire que bu ngeen saisiré saisi, le Sénat bi quoi comme dire aussi. Non, non Sénat élection la oui élection lañ parce que Sénat moom moo proposé en 78. oui mais loolu disposition constitutionnelle Oui, je suis d'accord. que disposition constitutionnelle.

da koy sàmm. Mhm. moo gardien de la constitution. absolument alors xanaa ñu fàttali euh, téléspectateur ak internet yi euh, Dakar Actu télévision bi Nous fàttali ne tey ñu ngi dalal Mamadou Si Tunkara, mooy coordonnateur national du mouvement indépendant Defar Sénégal alors euh, monsieur Tounkara génn nañ ci e législature fas yéene dem ci e législature nan nga gisee gestion e législature bi gis nañ fi ay percées yu bëri yi fi gars yi def xanaa dooma weddi gis nañ fi ay ay innovation yu ñu fi def simultané tradition simultané ak ay loi yu nationale Moustapha Niass yi nga def fi lan sa gis-gis douzième législature bi. douzième législature bi nit la yëfu nit boo càmbar rek léeg nga si gis neex na la léeg neexul. Mm-hmm. yow wax nga ni dugal nañ léegi ne sunu mm-hmm. député yi mën nañ ko ñu ngi koy soog a dugal. ginnaaw juróom fukki at ak juróom benn. loolu lu ñu mën a vraiment ndamoo la. lu mhm. mais ginnaaw loolu assemblée bi amul lu baax. ah bon ginnaaw lool man de gisuma ko. ci ci ay député wala ci seeni i jëfin wala ci lan. si lépp si député yi euh, ñoom juróomi at yi benn loi rek proposé wuñ ko benn.

du Sénégal ak euh, ci li nga xam ne moom mooy histoire parlementaire premier ministre di ñoo di janoog ñi nga xamante ñooy député yi ñu koy laaj mu leen di tontu. bon li ma doon wax sànq te parewuma ko mooy. Mhm. benn loi rek proposé ko. loolu moom euh, si juróomi at loolu njaaxum la parce que nit ñi dañuy avancé dañuy dem dañu war a indi ay loi yu méngoog jamono. Mhm. député yi di ko proposé loolu amul beneen bi ba dara juróomi at yi yëpp. une commission d'enquête parlementaire sax amul ben rek ben rek. Hmm. te ñun yu nous, yow El tay nga mu leer suñu pétrole bëgg nañ mu gaz nañ mu leer zircon nañ mu leer or bi nañ mu leer euh, transport bi aéroport bi lutax tay Sénégal ñu ñun ñu am wu ñun ñoo tabax aéroport bi gën a bi record record triste record hmm ñun Sénégal ñun ñoo jël temps boo xam ni benn réew mosu koo jël pour tabax benn aéroport te ba léegi aéroport yi pareegul Badara lu tax tey amul commission d'enquête ñu xool loolu lan moo ko. donc te benn ci mission yi député yi bokk na ci contrôle de l'action gouvernementale. boobu kay xanaa mooy ginnaaw voté voté contrôler loi boobu mooy beneen bi nga xam ni moo tax député ñu yabal ko. parce que yow tey mhm. gouvernement bi li muy liggéey ne mu ngi koy def pour yow yow da nga am ndaw yo xam ne ni El se doon wax ñom ñoo wara a saytu xol ndigam ñu koy def wala defuñu ñuko zéro commission d'enquête parlementaire pour 5 ans léegi benen bi nga wax nak moy question d'actualité premier ministre ñëw premier ministre bu ñëwee tour lendeum jox ñu ay calmants ay somnifères mais amna lu gën graaw lol ba dara. mooy la député Hélène Tine nee na moom personnellement. mom mhm. mo bind question au gouvernement question écrite. Mhm. jébbal ko gouvernement si affaire port bi trans te yoon dafa ni su député bindé question écrite jébbal ko gouvernement gouvernement si fanwéri fan dafa wara a tontu assemblée nationale. waaw. Elentine néna na ba dem ba tay ba sanken kenn tontu bukki nag. Suko. Suko, su yabé bëy yabee. wala. ce doxin wala gouvernement. assemblée nationale mën na ko daaneel. gouvernement mënul daaneel assemblée nationale. waaw mais bu fekkee assemblée nationale bi li ñu naan majorité mécanique moo fa nekk est-ce que xalaat nañ. ah, ah loolu kay jeexal na wax boo nee boo demee ba ni mécanique rek mooy doxatul. Mhm. mais li ma wax mooy suñu demee ba gouvernement ñeme. assemblée nationale bindu ko mu ne ko toppal fële. faale ma ci ci ci te du benn rek de. Mhm. plusieurs députés dañuy bind ministre yi duñu leen faale gouvernement

kon loo xam ne war nañ ci jëlee ab jàngat yéen ngeen fas yéene tabb ay député euh, amaan na euh, du ngeen am majorité parlementaire ba wala. Euh, wala ñu am ko. mun na nekk. waaye comme war nañ ko ndax ñu ngi ci jaar mooy ndax fukki département ak juróom la dugagum. waaw mais au moins ñu ngi ñu ngi campagne comme ñëpp ñu ngi ñu ngi campagne. te ñoom te ñoom stratégie de campagne bi ñu adopté mooy proximité bi gis naa ne. même ñi nga xamante ni ñoo fi ëpp alal sax moom moom moom moom. moom non c'est que tamit loolu tamit loolu tamit Badara. am nañ lu ñu mekk. ah lu tax. mooy ñoom ñu ngi ñëw jël suñu stratégie ñun amuñ doole. mais proximité lañ wax jege population mais loolu mi ngi soog a xoolal ren jii ren jii Badara. Uh-huh. Ndakaaru benn si kàngam yooyu ñi fi den politique depuis cinquante sept ans kenn si ñoom ñemewu fi def meeting. Uh-huh. meeting amagu fi. ah lu tax. dañ koo ñeme. ça veut dire que askan baa ngi leen di xaar wala. <laughs> léegi. ñemewuñ ko alaaji. dëgg man xam nga mun maa. léegi nag alaaji li may tontu ba dara xoolal ñun ñun tey amuñu amuñu doole. non non man ñu war a picc ñu xam la ñeme nañ ko. Mm. ku mën a ñëw dox ci tali bi di dugg ci këroo kër. Mm-hmm. sànniwuñ la xeer yuuxuwuñu la. war ngaa mën a woote mbooloo. loolu sauf que meeting peut-être mbooloo mënoo leen. Ah, contrôler alaaj ah, nag mënoo comparer meeting ak loolu du benn. bon te te ñoom seen porte à démb rek dañu dem fii ànd taseeg euh, foofu ñuy def porte à porte. Mhm. wa benno Bokk Yaakaar xalé yi nañu 1500 lañ leen fay pour ñu sol t-shirt ànd ak ñom di dem. loolu mu ñëmb carrément ah, dem de xalé yi wax nañu dem rek. ah mais mais Macky Sall ba mu ñëwee gestion sobre ak vertueuse la ah. lan laa la wax sans tour le ndem calmant tranquillisant somnifère. loolu la ñuy jox bàyyi ñu wax ne que dañuy tour lëndëm ñun ñëpp way yow tam nak seen ñu nak tour ñu ñu ndem ah vous vous la waxee lii def safaan carburant bi oh. nga maladie universelle plan ans. loo si wax. Ah, plan président mais mais eh alaa gisee dama li fi mhm. tranquillisant hypnotique. solution paracétamol quoi hypnotique. <laughs> voilà. voilà. hypnotique. Hein? Euh, dégg nga am ak ay somnifères pour nga nelaw. Ñu loolu lañuy jox dé. léegi politiciens ñun ñëpp tay ko laaj fi mu ne la politiciens yi duñu wax dëgg. léegi yow koo laaj fii mu ne politiciens yi sonal nañ ñu lëjël nañ ñu huit te ñoom ñëpp seen bop rek lañ fi nekk. mais mais mais li ñu ñëw souvent mooy dañoo war a dégager politiciens yi moom dafay ñëw souvent ci sa ay propos mais politiciens yi. peut-être am na loo xam ne ñu ngi ko fiy def baaxul mais nangu leen ne aussi am na loo xam ne ñu ngi ko fiy def baax na est-ce que jotul ñu jël leen formaté war leen indi leen ci logique ci réalité que ñu leen di jël dégager leen indi fi ñeneen. boo xam nga loolu ay formaté yooyu yëpp ay waxu tubaab la formate dafa am ñoo xam ni dañu jël chèque jox leen ko. Mm-hmm. chèque à blanc. ne leen dara newu ci liggéeyal leen ñu jël chèque bi bind seen tur. jël xaalis bi encaissé gis ko fi amuñu amuñu ay amuñu amuñu usine amuñu emploi dara ay milliards la position de pouvoir la utiliser pour enrichir ñun ñoo waroon riche président Macky déclaré 8 milliards ñu wax ko mu ne non moom nit ñi dañuy wax rek moom patrimoine am matul sax 2 milliards. moom loolu moo si doon tontu. mais président ñu du tax muy am 2 milliards. moom donc kon kon moom léegi riche na léegi moom ni mu riche am 2 milliards. Mhm. Sénégalais yi noonu la ñu waroon riche mais Sénégalais yi dañu gën a pauvre. waa Oxfam def nañ fi ay jàngat ñëw wane ni que Sénégalais yi dañu gën a pauvre tey boo demee yow Saloum nga nga juddoo. Mhm. Badara Diop. Mhm. waa Oxfam nee nañ boo jëlee téeméeri xale. juróom-ñeent fukki ak juróom ñëpp sous-alimenté mal nourri. rawatina ci Kaffrine. ñoom ñëpp sous-alimenté mal nourri tey euh, keroog waa COSYDEP sama wóolare. Cheikh Mbow Cheikh Mbow ñu koy nuyoo passage. macha allah sama doomu ndey liggéey wam solo lay def ah, euh, COSYDEP génne nañ benn téere benn jàngat wane ne am na lu ëpp million mu xale. Mhm. yu waroon dugg école ba léegi dugguñu tey ñun.

ñoom gën a kii ñun nag ñu bàyyi ñu ñu ndóol. réew mi ala gisee mais xam nga Tunkara bu mu jëlee ci wàllu éducation boobu ngay wax tey la école privée am am nu mu tuddati eh, lu ñu mën a tuddee sax màqaama. am gëdd. gëdd parce que ñun jamono bi ñuy jàng. dañu naan bu la dàqee école publique ngay dem privé. ni laa lay fay dem quoi. ni laa lay fay loolu lañ ko doon tuddee. kon yaa ngi may dëggal. waaw mais kon bu fekkee ne lépp màgget mi nga wax ne nga xam ne féppay métti

man damay jàpp ne que am na yoo xam ne mënoo koo xayma njariñ li lu dul nii ëllëg dafa ñëw. parce que amaana ëllëg ñu soxla terre kenn xamul. gis nga tey am na réew yoo xam ne soo ko demee dañ naan ah waa ñëw Sénégal waa Sénégal de su ma ñëwee dinaa dem visiter monument bu Ablaye Wade bi. donc euh, Paris bi ñu fa doon defar Tour Eiffel ñëpp dañ ne woon lii duñ ko fi def du priorité. mais tey c'est le monument le plus visité au monde. donc euh, pour man laaj affaire bi newul foofu de xam nga fan la nekk est-ce que askan bi. est-ce que du avons jiite. xam nga ñun dañu manqué référence mais tey boo xoolee euh, révolution de bi mu doon am foofu kilifa yi xam nga lan nous waxoon képp ku ñu tabb muy jiite suñ ko gisee alalam di a dañ ko riche sunu

bépp njiit boo xam gens fexewul ba ñi muy jiite seen i jikko gën a baax. Mhm. ñun ñi ñuy jiite yënguwuñu si baaxal suñu jikko ñoom seen bopp sommes exemple li doon échec assemblée nationale député parce que député yi xuloo xeex saagante tamante dëmm loolu keroog dama leen ko wax man leen mais député bu leen fàtte benn affaire dafa am xale yu leen royukaay du fi nek bi xulo di xex waaw man kay ñetti at ma ngi muñ mu ma doon saga rek waye waaye tey ma muñ ma saagawaat ko. et pourtant député dañ naan assemblée nationale yi gëna a mag ci àdduna bi yéen ñuy cité référence dañ fay gis ay député di xex di dorante ay chaise ak lo xam ne amu fa fii Sénégal. su boba assemblée nationale yooyu duñu ay royu royukaay nit da ngay roy lu baax Alioune Badara Diop. Mhm. bu fekkee benn assemblée nationale euh, député yi ñu ngi sumi seen tubéy di fa di fa saw si assemblée bi waruñu roy lool de. Mhm. assemblée yi ñuy xeex ñun waruñu leen roy dégg nañ la sax nga naan politicien bi nga xam day taxaw di saga di wax lu ñaaw moom ak ka taxaw ci mbedd ba di di fa tur ndax mën nañ leen a méngale parce que ñoom ñëpp ñu ay royukaay ñu ay royukaay benn alaaji ba pare ñaareel bi intérêt général yitteelu leen absolument ki taxaw si buntu kër gii fii yéen da buntu Dakar ak di fa saw mm-hmm. intérêt général yitteelu ko ki sàcc suñu alal tamit intérêt général yitteelu ko ki ñu liggéeyalul tamit député yi nee dañu lekk riba. parce que ah, ah oui dañu lekk. juróom benn kooku xanaa mérité wuñ seen salaire. yow defoo liggéey bi kay ma yow bu sa liggéey fii soo ko deful dañuy dagg sa salaire rek. mais problème mooy plénière bu amee ñoom mun nañoo ñëw. bu fekkee am na yenn question d'actualité mais mun nañoo ñëw. waaw dara yow yaa xanaa depuis du ko toog seen cycle rek taxaw bi xam mooy euh, tey assemblée nga xam ne téeméer ak juróom fukki député lol ben élément ah, la ah. beneen élément bi moy député bo xamné yow yow bi bind mënoo lire bo démé assemblée. way amna na am assistant. déedéet bu leen di loolu bokk na ci li ñuy. loolu loolu amul de daa gisee loolu amul fi de. yow France traduction traduction kii simultané yi mu fi. mais mais traduction yi plénière la. waaw waaw mais mais ca commission yi. am na ñuy wax am na ñuy wax naan député dañ ko war a fay jeton de présence bu ñëwee rek ñu fay ko ñooñu xamuñu ne assemblée di doxee. loolu mm-hmm. waxu dof la. Mm-hmm vrai du député c'est commission technique là. et pourtant nag député ligue, bu am solo la de def ci commission. liggéey bu am solo la ñu def. ñu koy def ci seen ci seen kàddu ñu koy def parce que nous avons fi ñun def nañ fi émission boo xam en perspective des législatives bu tudd redevabilité muy opposition wala majorité député boo gis danaan la sénégalais peut-être li ñuy gis plénière ñu koy filmer loolu la ñuy wax. mais bu ñu demee li nga xam ne moom mooy travaux de commission hmm. député am sañ-sañ jóg pendant plus d'une heure. di wax soxla te kenn du ko couper je crois que ne loolu tamit waaw loolu wax la mais mais léegi plénière yi xam nga ay kayit lañ koy liggéeyee mhm. boo mënul bind mënoo lire plénière baal ma te commission technique waaw loolu moom dina doy waar doy waar ngay wax badal <laughs> wala dindi ko badal les complices badal <laughs> complice nga ko di jàppale yow ñi nga xam ne ñoom nga teg say liste tey amaana euh, duñ soxla loolu ñoom dinañu mën xam assemblée lan mooy war a lan la war def bu boobaa ñoom ban discours lañu ñu am ca ña ngeen bëgg te ñu wootee leen seen liste boobu. parce que foog aussi am lu ngeen di convaincre. ah ñun li ñuy convaincre lu simple la. ngi lan. ñu fi jëlee politiciens yi ñun loolu rek lañuy wax xam nga euh, boo buggee defar. ñun mhm. defar Sénégal lañ boo bëggee defar li jiitu la war def ala gisee mooy téye loxo ku yàq mhm. loolu nga war njëkk a def te ñii fi nekk juróomi at yi liggéeyaluñ ñu. mais yaa xayti raxas dafa war a set ni ngi leen fi jëlee te Moustapha Diakhaté tamit foofu war nañ ko naw de moom d'accord na ni dañu lajj mu ne bàyyi na député yi fi nekk yëpp tey dañu waroon bàyyi ñoom ñëpp. te si ñu bëri investir nañ leen ñu ci li mais mais loolu loolu man man de man mii di wax ak yow de. Mhm. tey su ma nekkoon si assemblée boo xam ne lajj na sama ngor du may may ñëwaat di fa toog man personnellement. xalaat moom sax. waxtu bi fenn njëkk na ñu euh, balaa peut ñu bàyyi. Euh, Euh, sëñ euh, du Sy Tounkara tàggo mhm. euh, législative fa ngeen di yem wala da ngeen di continuer ba deux mille dix neuf wala waxoon. jotoon peut mooy baromètre bi <laughs> voilà. Ah, loolu yëpp mën na nekk mais <laughs> li li nar a xew bu soobee yàlla ñun ñi seq mbir mi tey. soobu si te bi ñu si soobu ñun defar Sénégal législative yi moo taxoon ñu soobu si. léegi nag bu législative yi weesoo ñun dinañ toggaat waxtaan xool lan lañ bëgg def lan lañ war a def. kan lañ war a àndal neen lañ war a àndal lan loolu yëpp après législative dinañ toog waxtaan. léegi daal di ngeen fexe bañ a nekk ay politiciens waaye ay hommes politiques. loolu de lañ fa ñun de loolu la ñuy jàngale mooy politicien mooy kuy wax lu dul dëgg di naxaate di luubal di ràcc jëmale si booram te du liggéeyal askan loolooy politicien homme politique nag wala femme politique mooy ki nga xam ne moom mission bi ñu ko jox daf koy matal ngir njariñu ñëpp njariñam mais aussi njariñu ñëpp. peut-être une dernière question. Hmm? Hmm? c'est l'animateur d'émission qui qui qui qui les artères aujourd'hui pour aller à, la pêche des voix comme oui. on dit alors au-delà de législative est-ce que téléspectateurs spectateurs, nga xamante une dañ la émission Sénégal ca kanam wala yeneen émission ils, ont espéré espérer ça sur l'écran? écran bi wala da ngay dem ci euh, découverte Je de bëgg ñëw Dakar ak ci ngeen embauché. c'est c'est un appel ah mais mais il faut mu répéter ko ñu dégg ko. dooleel ma am xam nga sax ma ne ñuy baax. sauf que pose damaa yàgg ak yéen. sauf que répondre ci question bi ah. s'il peut être sauf que répondre ci question non non mais yéen moom xam nga yéen ñoo bokk mbuus mais li wax mooy. fu mu toll nii émission moom xam nga mun moo def léegi bu bu élection yi tamit weesoo suñu yàlla may lu ñu bëgg tamit dootuma mën def élection xam émission xam nga. tout à fait ndax nga yoon. dafa mhm. tere député mu def yenn xeetu liggéey euh, amaana te xam nga man télé moom dëgg dëgg ku waxal yàlla rek man du ma nitu télé yàllaa ma si boole noonu rek ma jaaroon si rek mais jaar yàlla rek. pour mais mais soo ko moomatoo sa bopp ci télé. ah su ma neexee doot ma def télé di wala. mais boo déggee ma koy wax peut-être am na ñi nga xamante ni ils sont aujourd'hui nostalgiques. waaw waaw waaw ah, ah, <laughs> loolu loolu loolu euh, boo demee si armeer ya uh-huh. da nga fekk ñoo xam ni nit ñu bëri nostalgique nañ si ñoom dañu foogoon ils sont indispensables ñoo nga foofu tëdd ñu suul leen nul ne indispensable te ku nostalgique nostalgique de lu baax la mais euh, affaire télé moom euh, maanaam jaar-jaar la woon rek boo xam ne man jànguma télé Euh, musuma xalaat def tele musuma musul nekk sama ambition yàlla daal moom si boole. Euh, bokkoon naa si jëm naa si bay waat mais leen lu nekk moom dafa am app bu app bi jotee rek daa defe naa dañoo dañu war a. leer léegi nii li may jeexalee alaaj gise mhm. mooy. Mhm. sénégalais yi euh, ñi nekk fii ak ñi nekk bitim réew yëpp ñun tey politiciens yi dañoo yàqule xam nga lu tax ñu cóolle ndax ñun dañoo yeewu léegi. nangootuñu ku ñu jox somnifère tranquillisant calmant hypnotique dootuñu ko naan ñoom politiciens nañ ko naan. yow nga jël ñokket. ñun. léegi dañoo xam nga ñokket léegi xam nga dañoo nekk ñokket mooy jóg dem. non léegi moom dañuy bi nga xam ne boo kii di jóg dem. <laughs> booboo baax. wala baax wala non non booboo baax. boobu moom dem si ànd parce que réew bu ñu koy defar ñëpp dañu war a jóg taxaw. Mhm. Euh, léegi ñoom politiciens yi dañoo yàqule ndax ñun loolu dootuñu ko naan. dootuñu nangu ku ñu tuur lëndëm mhm. léegi dañoo nekk ci jamonoy internet ñëpp xam li xew suñuy naxoon nañ suñuy maam suñuy maamaat ak suñuy baay ak suñuy ndey naxoon nañ leen mais ñun kenn mënatuñ nax politiciens ñun ñëpp xam nañ ni duñu ay liggéeykat neewaluñ ñu fi li jiitu li ñu war a def gi si woo ñëpp ñëpp war see jàpp mooy nañ fi jëlee politiciens yi 30 juillet 2017 ñu leen di woo yooyu ñëpp ngeen jëli seen i carte électeur nag na leen ko jaral de affaire bi dina metti dinañ ko jéem a kii galgal fii mais ñu ko jaral ñun ñëpp benn yoon rek lay am juróomi at bu ne nañu ko jaral pour suñuy doom pour suñuy sët am Sénégal bu gën bi ñu nekk nii parce que Sénégal bi ñu nekk nii normalut ñun ñu ne woon bitim réew wala ñu ne bitim réew bu ñu fi ñëwee dañu gis ni réew mi normal président si boppam nee na réew mi daa salte réew mi amul kaaraange réew mi ñun amul ordre amul discipline pagaille désordre loolu yëpp dañ nous war a te bi 30 juillet ñu wan politiciens yi ñun on a tout compris léegi ñun xam nañ lu xew. léegi njàccaar lañ li alaaj wax dañoo naan ñokket. ñokket mooy boobu nga xam da 30 <laughs> juillet 2017 dañu voté waa defar Sénégal ngir politiciens Mami, yi sët yi ñi demoon ñi ñëwaat ñëpp ñu jëlee leen fi. jërëjëf Mamadou Sy Tounkara di am mbégte euh, ci waxtaan bi euh, di ñaan yàlla campagne ñu yeggale kook jàmm ba ñu yegg ci cëppaandaw li mu di 30 juillet. Mhm. Euh, di gërëm Alioune Badara ak technicien yi nga xam ne caméraman yi ñëpp ci jàpp ci émission bi leen doon daje incha allah ëllëg ci beneen émission Wassalam.